mooy tey sooy wax ak waa APR amuñu argument sooy wax ak waa Bennoo amuñu argument xam nga lan lañ wax force restera à la ku ci génn ñu rëkk sa ndigg rëkk sa ndigg du ñun ak ñoom la diaspora wane nañ ko waa diaspora yi wone nañ ko su desoon ñun ak waa Bennoo takkusaan balaa timis leen ñoom ñëpp dugal leen ci bato ñu génne leen ñu yaakaar xam ngeen kan la ñu yaakaar force de l'ordre yi la ñu yaakaar te gis nga ñu ragalu force de l'ordre yi waxoon naa leen leen amul benn police bu ñuy tàggat ci kër àdduna pour mu def face à son peuple ça n'existe nulle part ils sont une infime minorité pour faire face à un peuple police li koy tàggatee mooy pour ñu gérer li nga xamante ne mooy sécurité publique mooy tey suñ ñëwoon suñu biir fii kenn di def naka suñu noonu ñu woo police police ñëw taxañ ko fekk ñun ñëpp ñu ànd ci la mais police su ñëwoon fekk ñu fii ñun yëpp bëgg ñoo taxañ yóbbu

te ñaareel da ngay gis ne duñ ci am li nga xamante ne moom mooy ay preuve valable dañuy jël rek di yóbbu di tëj léegi ñoom loolu la ñuy def argument ñu ne ñu su ngeen génnee rek nguur gi génn dal seen kaw et nguur gi aussi ils n'ont pas compris que ne dal sa kaw c'est-à-dire nit ku pitax quoi xamante ne da yor sa fetal fii rek pitax bu jàll rek nga ni ko pan daaneel pitaxu jàmbur sa soo ko reyee am na lu ciy fekk ñaata ci ay doomu aadama ñaata ñu bokk ak Pastef ñaata que loolu day neen

merci beaucoup monsieur le maire cap de rafet na euh sans plus tarder dinañ dugal euh, li nga moy euh mooy Oulimata Diatta ñu changé on varie un peu une fille mu wax mu don euh, femme bu jambaté euh nek bok ci GPS euh mu sawar nek ci liguey bi donc tamit honneur le tamit ñu len di présent ñi au grand public merci la première fois nak muy wax nak salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew leen sant leen gërëm di nuyu nag sénégalais yëpp di nuyu waa diaspora ma leen di ne ñoo ngi rafetlu seen teewaay gis nañ seen engagement ak seen détermination ñu nag suñu waxtaan dañ koy dooree euh, fii ci Casamance minyaawul torop torop torop ghettoisation bu ñu nekk di def Casa si ñu ngi ñaawul torop stigmatisation bu nekk di def Casa si xanaa ñun bokkuñu Casa kii Sénégal ay sénégalais lañu am nañu ay am nañu nationalité sénégalais kon nag gisuma Macky Sall lan moo tax mu bëgg a xaajale ñu daf ci tuuti torop kon nag dañ ko war a xeex dañoo war a wane ñun suñu dëgër laay bés ni ki tey dañ koo war a gën yokk ñiy wax nag ñu nga xamante ne loolu lañ gën a dénoncé dañu nangu tey mooy suñu président